président defal ma lii président toll na ci jaaxle donc uh-huh. toll na ci jaaxle nag uh-huh. na dajale sëriñ waaw bu ko defee it ci liñ jële ci kilifa gi nee na lii nga xam ne def nañ ko ci maram bu daay ñëpp teg ci seen bët muy taarix boo xam ne ko xam nee ki mën lii maanaam président war dajale ñi nga xam ne ñooy kilifa yi yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu wax ci li nee na feebar nee neen jaaxal na ma gannaaw nag lu leen jaaxal gannaaw nag lu leen jaaxal. ci seen jàng yi ci seen jàng yi. ngeen ne defalu leen ma lii ngeen ne defalu leen lii defalu leen ma lii. lii nag xew na. lii nag xew na. yéen laa ci yen laa ci yaakaar. ñooñu nag na oo. ñooñu nag na oo. owaale ñun yàlla yàlla. yàlla yàlla yi. ñu ñëw fekkee. ñu ñëw fekkee. kenn ku ne. kenn ku ne. indi kàddoom indi kàddoom. léegi lii ne ci réew mi jeex. nee na kon léegi lii nekk ci réew mi nga xam ne moo jaaxal nit ñi jeex. sëriñu Sénégal yi. ci biir si eh, ci faw sëriñu Sénégal yi. am na ko ci yàlla may. am na ku ci yàlla may. koo xam ne bu ñaanee rek. yàlla def koy nangu mbas mi jeex. waaye nag. waaye nag. président day invité ñëpp. waaye nag président day invité ñëpp. ci biroom ci biroom. ni mu def responsable politique comme ni mu def responsable politique yi. na ko def sëriñ si ci biroom na ko def sëriñ si ci biroom. ku dugg génn. ku dugg génn. wax ko ay waxam wax ko ay waxam génn. bu ñëpp daj. bu ay waxam eh, bu ñëpp daj. noonu na ko def sëriñ si. noonu na def sëriñ si. bu defee noonu sëriñ si. bu boobaa yitam sëriñ yi wane li nga xam ne moom la leen yàlla jox bu ko defee ñu am jàmm kon léegi lii jeex ci réew mi kon nag mu ngoog asalaamaaleykum waaw taba yi itam mooy taba yii ngeen di gis nii may joxoñ nii fi la maram bu nekkoon fii it la moome woon dëkk bi fii la ko dëkk bi yaakaare woon lépp lu dëkk bi yaakaaroon ci seen itte fii ci tabag yi lañ ko daan fekk di koy ñaan jëm jii nag jii ngeen gis ma filmé muy Cheikh Souleymane Niane moo ko fi génnee bi mu ko fii génnee itam moom maram attega béréb bii ñu toll ni sus taba moo nekkoon fii fële lañ songante fii fii la daqe maram mu wuti njomboreel mooy jëmm jii di Cheikh Souleymane Niane sol yére yu weex yii ak kaala gu rafet gi waaw waaw fale itam ngeen gis ne mu mel ne gis ngeen ko nii mu mel ne gis ngeen garab yu ndaw yi fi sax xam naa ko xaw sori ñaari tabala bale ko ñetteel nag moom fala maram nekkoon gis waaw booru nii nag côté euh, penku bi. Euh, kii bi ñu daan wax. waaw déem gi doon wax nga xam ne. si déem gi ñu waxoon ne. ku ci màcc rek. yóbbu ko sa kër yàbbi ko fa. sa kër day daal di lakk. fële la nekkoon fële ma joxoon ñi alhamdulilah. kon te loolu yëpp jóge na fi. alhamdulilah rabbil alamin